ñëpp xam nañ ne route bu encombré la li ñu jot a gis ci li nga xam ne moom mooy encombrement bi ñu tàmbali fii lu ñu jot a gis ci li nga xam ne moom mooy nettoiement bi ñu engagé tey euh, dal na xel action yu mel nii loolu nag dañu bëgg non seulement mu bañ a nekk bës bi nga xam ne bi ñu tànn mu bokk ci sumu agenda mu bañ a nekk rek bésu euh, premier samedi de chaque mois mais mu nekk bésu boo xam ne saa yu ñu yeewoo ñu war a netal euh, setal suñu dëkkuwaay ñu war a setal suñu quartier ñu war a setal suñuy commune ñu war a setal suñuy ville ñu war a reboiser également gis nga ni léegi euh, reboiser nañ fi ay garab euh, mun naa jàpp ni bësu tey bi nekk na une réussite waaye il faut que sénégalais yi am réflexe bi nga xam ne bu ñu gisee lu tilim yu dindi ko parce que nettoyer c'est bon mais na pas salir c'est encore mieux nga jël ay papier nga jël mbalit nga tuur ko euh, deux jours après nga ñëw nettoyer ko amul benn njëriñ. Sénégalais yi dafa aadawoo euh, boo ko waxee jóge fi rek boo wone ginnaaw mu dellu ci waat waaye li nga xam ne moom mooy encombrement bi dinañ ko topp fépp fu ñu encombre désencombré dinañ fexe ba reboiser ko ba indi fa ba texewal fa ay garab.